الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بقي سني بروم سبحانه وتعالى دي moom mooy borom jaam yi moom moo wàcce ab téeréem ci ñoom ngir téere boobi teeta leen nu jaam yi mën a def ba mën a am seen ngërëmal boroom ci àdduna waaye mën a texe it àdduna texe allaaxira looloo tax suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam daana baril di def ay xutba waaye bokkoon na day lu bari woon lool ci ay xutbaam mooy bu nit ñi dajee juma mu jàngal leen suuratu qaaf loolee nekk xutba ba loolu it moo tax ba gis kii nga xam ne mooy soxna suñuy tuddee umu Hisham bintu Nu'man mu ne man day comme ñun suñu kër daa sësoon ca jumaa ja lii di qaaf wal quraanil majid jànge wu ma ko fenn lu dul ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne da ko daan bari lool di tari ca ko min barba ci lool rek laa ko laa ko dégge na am mbokk julit saar la boo xam ni borom bi mi ngi koy ubbee di waat ci téeréem bu màgg bi nga xam ne mooy li gën a màgg lu doomu aadama di wax ci kaw suuf nit ak jinne buñ daje woon mënuñu indi lu mel na moom doonte ne yéeféer yu bari ñoom dañoo yéemu ci naka la yàlla subhanahu wa taala di waxee doomu aadama ñu ne loolu day mbir bu yéeme la amma ñun ñi nga xam ne ñuy dund suñu jamono yi tey doomu aadama day nekk ci Amérique di wax ak doomu aadama bu ne ci Afrique te nekk ca extrême Indonésie di wax ak nekk fa gën a sori ca àdduna loole suñu borom yàlla feeñal ñu tey ku ko waxoon sunu maam yi ñu ne dangaa dof lu mel noo nit la yéefire doon wax kii nan lay nekkee ci kaw suuf ba pare na yàlla ma ne ci kaw asamaan ba mi ngi wax ak moom loolu muy benn ñaareel ba ñu ne waaw ñun bu dee dañoo dee ba nekk suuf naka nañ la ñuy dekkalaate suñu borom mu ne xam naa lépp lu suuf di jël ci ñoom ca maa ngi ab téere boo xam ne dara du ci rëcc ca loolu itamit mbokk julit doomu aadama sa cosaan mi ngi nekkoon benn toq mi nii yu ca nga nekkoon ca biir toq boobee nga nekkoon ñu koy tudde ay ay xalaaya yoo xam ne spermatozoïde la ko tubaab bi di tuddee il fallait ñu multiplier le des millions de fois pour mën laa gis suñu borom yàlla fala la jaarale ba génne leen nga nekk ab liir mu màggal la ba nga toll nii nga toll borom bi subhanahu wa taala mu ne weddi nañ dëggug yàlla ga ba mu dikkee ñu nekk ci ak lënt ak ak jaxasoo waaye ñii weddi kàttanu yàlla moo tax dañoo xoolul asamaan bi nekk ci seen kaw naka laa ko yëkkatee naka laa ko taarale ci amul benn xar-xar buñ cay gis mbokk kooku mooy borom asamaan ak suuf mi bàkku bàkku goo xam ne wares na koo fàttali doomu aadama yi fu ñu mën a toll mbokk ñi ngi ci jamono boo xam ne nit ñi xamatuñu yàlla ñi ngi ci jamono boo xam ne nit ñi seen moroomu doomu aadama la ñuy yëkkati moom la ñuy màggal jàpp ne lépp loo xam ne mi ngi xew moom dong mooy ka nga xam ne ci la jóge lépp luy xéewal ci moom la jóge waaye borom bi mu ne asamaan yi ngi nii man maa ko yëkkati mu gaa yi ana ko jàppale yàlla bi mu yëkkati asamaan yi moo ko taaral ci des milliards et des milliards ci ay biddiw ak jant ki weer ana kan moo ci jàppale yàlla suñu borom yàlla mu ne suufe gi maa ko tàllal maa ci samp ay montagne génn ci bépp façon gàncax bu taaru ana kan moo doon jàppale yàlla bi muy samp montagne yi ko doon jàppale yàlla bi muy xotti géej gi ku doon jàppale yàlla bi muy génne forêt yi ak steb yi ak bi muy génne lépp luy façon million ci ay garab ana ku ko jàppale mbokk kooku kenn jàppalewu ko borom boobu mu ne def naa ko lay leer ñeel bépp jaam buy dellu ci boromam subhanahu wa taala te mi ngi noonu yow mi nga xam ne yaay jaam bu baax del xalaat ci asamaan di xalaat suuf xalaatal ci géej ga ak gàncax ga ca bàyyuma ya gannaaw ba xalaatal ci sa bopp da ngay gis ne laa ilaha illallah yàlla rek ay yàlla mboolem mi xéewal ci moom dong lay jógee kenn du ndendam kenn du ko jàppale jalla wa ala borom boobu mu ne gannaaw loolu maa wàcce ndox mu jóge kaw asamaan ma génne ci ay jardin ak façon meññent yoo xam ne nii ma nga ànd ak tàndarma yu màgg ya loolee ma def ko seenub dund ay yéen doomu aadama yi kan mooy ki créé ceeb kan moo créé dugub ak mboq kan moo créé banana ak pomme ak orange ay millions d'espèces yi doomu aadama di dunde ana kan moo ko créé loolu lépp mbokk mi ngi jóge ci borom bi jalla wa ala borom bi nee na nii laay dekkale suuf boo xamee ne dee woon na wow wow na koŋ ma wàcce fa sama ndox mboolem gàncax génne fa bis bu ma neexee danaa wàcce benn taw aadama dekki mboolem ñi ñi mas a suulu ci kaw suuf di nit ak jinne ak lépp loo xamee ne nii nekkoon na ci ay bàyyuma suñu borom yàlla mën a danaa ko génne waaye nag weddi gi ñu weddi di ñoom ñoo ko jëkkee xaw mu nuux weddi woon nañu asxaabu ras waa samuud waa aat waa firawna xawmu luut asxaabul ayka xawmu tubba ñii ñépp dañoo weddi woon suñu borom yàlla jàpp leen fii ci kaw suuf loolu muy dëggal waxi yonent yàlla yi kaay leen gëm yàlla mu teral leen su ngeen ko weddee mu toroxal leen àdduna ak alaxira ba ka xeet yu jëkk yi weddee mu toroxal leen loolee dañuy dëggal ci ne lay xew ci alaxira it luy dëggu lay doon gannaaw ba nag suñu borom yàlla ñëw di tontu ñooñu nga xam ne weddi nañ dee dekki ca booy xool muy ñi ëpp tey ci kaw suuf borom bi mu ne waaw ndax ba ma bindee bind gu jëkk ga nag dama lott ba mënuma bindaat te loolee benn philosophe mas na ko nettali mas na ko tontu beneen philosophe bi mu ne ko allaaxira amul mu ne ko waaw àdduna nag nu mu def ba am mu ne ko àdduna li fi nekk yépp par hasard la mu ne ko waaw ndax par hasard kon àllaaxira munta am philosophe ba ne yàjj xamul lu mu koy tontu waaye ñun gëmuñu hasard dañoo gëm ne suñu borom yàlla mooy xaaliqu kulli shay'in moo bind lépp asamaan yaak suuf ak la ci diggante ba dig nañu ne dana mas a yàq lépp jeexal lépp waaye dig nañu nit dana mas a génnewaat lépp lépp taxawaat yow doomu aadama ni nga génne sa biiru yaay def yaramu neen bisi ngi ñëw da nga mës a génne sa bàmmeel def yaramu neen borom bi yàlla nag avant loolu nee na xamal ne yow doomu aadama lépp loo xamee ne nii mi ngi ci yow ci lépp loo xam ne yaa ngi koy xalaat man xam naa ko borom bi jëlale ne la ngay wax jëlale ne la ngay jëf waaye nee na li ngay xalaat sax xam naa ko ñun ñoo la gën a jege sa buumu xol am na ñu ne yàlla la am na ñu ne moo ca ma ngi ca jublu ay malaakaam waaye ala kulli xaal suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na boole naa la ak ñaari malaaka yoo xam ne kii mi ngi la féete ndeyjoor kii mi ngi la féete càmmooñ amul benn kàddu buy génne sa làmmiñ lu dul pare nañ daal di koy enregistré loolee mu nekk ci téere ba nga xam ne dalay xaar malaaka yooyu di bind say kàddu say jëf waxi noppi ca loolee mbokk julit dem nañ ba suñu borom yàlla dëggal ko tey jii caméra bi nekk sama wet mi ngi nekk di jël samay wax waaye naka noonu it mi ngi nekk di jël samay jëf ca loolu doomu aadama kese moo ko créé génn ko ci suufa si yàlla si naka noonu it borom bi jàll waala mi ngi booleeg ay malaaka yoo xam ne nii dara du ko rëcc ci suñuy jëf borom boobu nee na yow doomu aadama bi si ngi ñëw lii di sukuraat bett la indi la la nga xam ne mooy dëgg mbokk dee rek mooy dëgg dama aadama da ngay jaar ay étape fu ne nga jaar fa waaye bu dee ñëwee mooy dernière étape ci kaw suuf nga dem wuyu ji sa boroom ca bàmmeel borom bi nee na dee ngi ñëw ci dëgg lii day moo nekkoon nga nekkoon di ko moytu amul kenn ci ñun lu dul yaa ngi daw dee gu dëgg ba cëg waaye mbokk dee googee fa nga ko daw jëm moom fa la jógee di daje ak yow kenn munte mucc ci dee ana ñaata nit lañu gis xatta ay personnalité ci suñu réew ñu doon moytulu nit ñi ay corona di joxe ay misaal waaye ñoom corona bu ñëw rey leen loolee kon mbokk moytu téewu la dee doonte ne nag da nga sabablu waaye gëmal ne lu mu yàgg-yàgg dee day ñëw borom bi nee na bis dana ñëw ñépp dee bu ñépp dee nekk ñu daal di wal ci suur béjjën boobu nga xam ne buñ ci ëffee doomu aadama yépp daal di ñëw bépp bakkan bu génnee biir bàmmeelam ñaari malaaka ñoo koy escorté kenn ki mooy jiitu keneen ki topp sa gannaaw yor sa dossier ba ñu ñëw ci sa kanamu boroom boroom bi daal di lay génneel lépp loo xam ne kaawteefi bu si pénc la nga jàkkaarloog malaaka yi jàkkaarloog la nga xam ne nii mooy sawara jàkkaarloog la nga xam ne mooy mbugalum borom bi subhanahu wa taala suñu borom mu ne tey day fa basarukal yowma hadid doomu aadama gis mboole mi kawte fi yàlla ci noonu la malaaka bi yor dossier bi ñëw ne bëcc ne yàlla sa jàmm bi day mi ngi nii lii la liggéey haza ma la day yaatiit bu doonte ne jàmm ba ni jaarul fu neex yàlla borom bi ne jàpp leen sànni leen ko ca mbugal mu màgg ma kii nga xam ne bi mu nekkee ci kaw suuf daay weddi woon yàlla dëgëran bopp daan tere lu baax daan sikki sàkka xool leen fa gën a tar ci mbugal mi ngeen sànni ko fa ndax da daan bokkaale boroomam subhanahu wa taala bu ko defee ka nga xam ne moo lënkoo woon ak moom di seytaan ca ngallawaayu mbokk jullit xam leen amul benn doomu aadama lu dul yàlla nattoo na ko benn seytaane bu ko topp ngiree yàqal ko diineem loolu nag bokkul ak li ñuy wax naan kii daa am ay faru rabak kii daa am nangam déedéet loolee kenn mucc ca yonent ak ku dul yonent ku nekk am nga koo xam ne nii seytaane bu la topp ngir yàq sa diine bu ko defee seytaane bi malaaka yi jàpp ko mu ne ay sama boroom du man maa ko réeraloon waaye daa bokkoon ca dafa nekkoon rek ci cànkute gu sori borom bi ne déedéet bu leen dàgg senteeg man tey ca fekk jiitaloon naa sama téere mu ñëw di leen xub tey jii day samay kaddu du soppeeku ca duma tooñ benn jaam mbokk samay kaddu du soppeeku ngal la waay bàyyi leen xel li ngeen di dégg ci rajo yeeg télévision yi ngeen dégg ñu ne diw day yàlla baddil na ko li ngeen di dégg ci rajo yeeg télévision yi mooy diw day yàlla defal na ko nangam ak nangam dem nañ ba sunu jamonoy tey nga gis ne la yonent yàlla wax ne boo tabbee bàmmeel lañ lay laaj mooy kuy sa boroom luñ lay laaj mooy lan mooy sa diini liñ lay laaj mooy lan nga xam ci yonent yàlla muhammad tey dem nañ ba nit di wax déedéet loolu lépp amul soo demee la nga xamee ne mooy bàmmeel kiñ lay laaj mooy suñ caam xamoon nga ko àjjana nga jëm xamoo ko texee di nga mbokk loolu suñuy wax la waaye téereb yàlla bi fi nekkoon depuis quatorze siècle yeneen ba jàng ko ay sahabaam jàng ko génération ji topp jàng ko ñu koy jokkalante ba suñu biir waxi ay caaxaankat du ko toxal li yàlla wax rek kay dëgg lay texe lay tax texe doomu aadama mooy nga daal di topp ndigal yàlla topp téereem bi keroog yàlla dana sarse biir sawara gannaaw ba ñu koy laaj sawara ndax fees nga mu naan yàlla nañ ma dolli yàlla nañ ma dolli ba loo xam ne dañ koy wax gëm ko naka yonent bi gëmee suñu borom ba lenn melul ne moom moo jël tànkam teg ca kaw sawara mu daal di moxoñoo su ko defee mu ne fees naa fees naa ñu tëj fa nag waa sawara amul kenn ku leen fay génne borom boobu nag subhanahu wa taala gannaaw ba nag lay xool mbooloom waa aljanna yal na yàlla boole ñu ca daa di ne malaaka yi indil leen ma ajjana ñu jegeel aljanna mu ne lii laa leen digoon ñeel kan ñeel bépp jaam boo xam ne wattu woon na samay ndigal kullu awaabin xafiis ku dellu woon ci yàlla wattu woon ndigalu yàlla yi man xashiya arrahmaana bil gayb wa jaa bi qalbin munib ragaloon yàlla ci kumpa indi xol boo xam ne ci yàlla rekk la dellu xol bu dellul ci masamba du ma demba yaakaarul woon kenn ku dul yàlla kese bi qalbin munib udxuluha bi salaam dem leen dugg àjjani ci jàmm bii mooy bis boo xam ne bis amul gannaawam da ngeen fii sax ba faw àjjana joo xam ne du jeex ba faw lépp lu ngeen bëgg ma nga fa te da ngeen fa gis loo xam ne seeni xel musu koo xalaat seeni nopp musu koo gis seeni ah la nga xamee ni nii mooy bët musu koo gis seeni nopp musu koo dégg borom boobu nag subhanahu wa taala mbokk lii la ñuy dikk waaye li ëpp ci doomu aadama yi dañoo weddi mu ne nag xam leen ne man yàlla day alak naa la bari woon ca ña leen jiitu woon ñoo xam ne amoon nañu alal naqabu fil bilaad fu leen neex dem ci xéewalu yàlla waaye téewul dañoo mujj alku mu ne nag lii day ak waaraatee ngi ci ñeel koo xam ne am na xol buy dund am na nopp yuy dégg te mi ngi nekk di teewe di settantal waxi borom bi jalla wa ala mbokk li mooy alquranul karim biy jëriñ doomu aadama borom boobu subhanahu wa taala mi nga xam ne dara tawu ko moo bind asamaan yi ak suuf ci juróom benn bis mu ñal la nga xamee ni nii mooy képp ku lay weddi te nga sabbaal sa cantuk boroom bu suba jotee ak bu ngoon jotee te loolu mooy lan mooy fexe ba taxawal julli juróom bi nga xam ne mooy tax doomu aadama texe àdduna ak alaxira bokkool ci muñkat yi nga xam ne dañuy muñ ba xam ne léegi àdduna jeex ba xam ne léegi alaxira taxaw su ko defee borom boobu subhanahu wa taala nañu man may dundal man may rey bi si ngi ñëw suuf xar doomu aadama yépp a génnandoo ma dajale ñépp ci sama kanam borom boobu nag ne lii day mooy li am doonte ne maa gën a xam la nga xamee ni ni yéefir yaa ngi koy wax waaye nag maa ngi lay dénk fa zakkir bil qurani man yaxaafu waid del waaraatee ci alquran ki nga xam ne ragal na samay tëkku mbokk julit lii moo tëj suratu qaaf amma bu dee dëkk bu mel ne Sénégal bokk na loo xam ne jaamu yàlla gu rëy la gu yàlla gërëm lool di ci texel ay jaamam ca mooy ragal mbugalu yàlla ragal alaxira waaye mbokk suñu rajo yi télévision yi ak multiple daje yi am rocci nañ ci xoli doomu aadama yi ragal yàlla rocci nañ ci ñoom la nga xam ne nii mooy ah alaxira tiit alaxira ñun ñëpp jàpp nañ ne dara teewu ñoo tabbi aljanna lu dul dañoo dee mbokk loolu njuumte la amul kenn koo xam ne daa nar a texe lu dul xolom bi ñaar moo ko séddoo alxawf wal raja mooy ragal yàlla ak yaakaar yàlla heure boo demee ba ragal yàlla kese jàpp ne man alku naa sa xol boobu baaxul heure boo xamee ne xol ba daa fees ak yaakaar ca ragaloo yàlla xol boobu baaxul bal la nekkoon xolu yonent yi ak gaa yu baax ya mooy fa zakkir bil quran man yaxaafu waid del waaraati ci alquran ki ragal samay tënku ñi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala ma boole ñu ci ñi gëm ab téeréem boole ñu ci ñu dund ab téeréem boole ñu ci ñi ab téeréem di taxa texe àdduna ak àllaaxira yal na yàlla musal ñu musal suñu njaboot ci lépp loo xam ne da leen di dox seen diggante ak téer bu yàlla bi ci bépp pas-pas boo xam ne day tax ñu bañ a gëm la yàlla wàcc ci ab téeréem yal na yàlla rafetal suñu mucc boole ñu ci àjjana firdawsi muy suñu wàccuwaay allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi laaxirati xasana wa qina azaba annar subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin